dal leen ak jàmm seen seen bi di Thiowli Buzz kii di président Macky Sall di président de tous les sénégalais tey le trois juillet la ko ñëpp doon xaar mu daal di yëkkati kàddu jëmale ko ci troisième candidature am bi ci réew mii di Sénégal ci élection présidentielle liñ jëm ci loole nag kii di président Macky Sall li mu xamal sénégalais yi mooy que ne malgré ñu koy soutenir ci biir partie bi di Benno Bokk Yaakaar ak soutien yu mujjee jot ci mairie ak président conseil départemental yi ñëwoon pale daal di koy seet si moom mii di président Macky Sall ne de présenté wu ci élection présidentielle de 2024 2024 ñu jëm mais moom du nekk candidat ci élection présidentielle 2024 ñu jëm donc ci question bu ñu doon laaj kii di président Macky Sall waaw wala déet ndax dina bokk ci élection présidentielle 2024 ñu jëm kii di président Macky Sall nee na déedéet moom du bokk ci élection présidentielle yi ñu jëm.